waa waaye loo lekk nii ah, <laughs> yow fi nga gën a neex fi gën a tey moo neex moo saf ci loo nii ah tey fii nga pël la waaw mais caakiri bi war na safan ah. <laughs> ah lu tax ah bu ma <laughs> li ma indi kay moom damay lekk rek moo la ah. tey moom xibaar yi dafa saf saf saf saf ah <laughs> loolooy baax nag yow xam nga yow danga ngaa bëgg lu yomb doo dem penn di bëgg ma lay jox danga may jox nag hmm. loo xam ne nii musta am moo am tey benn jeune fille boo xam ne nii mi ngi soog a am bac mm-hmm. amul fenn fu muy defee arrosage am lu dul biir prison <laughs> daf fi daal yaayam moo amoon benn natt bu rëy boo xam ne nii moo ko téye woon natt bi nag ñëpp ñëpp ñëpp dañoo teggi ba mu des kenn kooku nag mooy dox di jaabante di laaj xaalisam guddeeg bëccëg muy ñëw ci yaayu xale bu jigéen bi naan ko sama xaalis di ma ko jox demal tey suba tey ngoon tey suba tey ngoon ba tey nag ndaw si nag ak dee du génn kër ga te jox ñu ko xaalisam six cent mille francs ah ndaw si am bac ñoom fekk xale bu jigéen bii laaj yaayam xaalis dóor koo dóora dóor ba kooku di gis bidéwu bëccëg kooku wëlbatiku dem police porté ko plainte moo taxit ndaw sàng biir prison di fa sale ah <laughs> kooku de bu génnee prison kooku war a célébrer bagam amul fu mu koy defee loolu biir prison <laughs> ah natt moom su doon mën rek du am mbaa nga tijji sa compte sax ci banque yi. waaw surtout ma loolu. soxla Dakar fan yi tata yi dañuy gërëw de. ah lu xewati. soixante douze maanaam ñetti fan yoo xam ne borom tata hmm. ñi ko yor nee nañ dañuy gërëw. ah prise en charge médicale ak sociale amuñu ko. da ngay feebar am na ñoo xam ne dañ leen a ci ay accident sax amuñu ku leen taxaw taxaw ñu ne nag ñoom il faut ñu dem grève soixante douze heures pour gars yi déglu leen ah <laughs> ku am soxla fi mu toll nii war a dem Dakar na nga ci bàyyi xel de. tataay moom que mënoo te amoo benn dëgg-dëgg te ñu doon ay boroomu njaboot. ah. waa xam nga ñoom dañoo bëggoon a def benn marche te àjjuma ji. préfet aaye ko. ànd nañu décision préfet bi daal bàyyi. foofu lañ mujjee. ah Macky président nag jël na matuwaayam ci émigration clandestine bi. dafa jot. ñu yokk vigilance ci surveillance yi nga xam ne zone de départ yi nga xam ne fa la nit ñi di jëlee gaal yi di dem neena na nit dina ci taxaw jël ci ay matuwaay yoo xam ne nii dina jox jumtukaay gaa yi taxaw ci zone de départ yi pour taxaw bu baax suñu ndaw yi ñu bañ di dem. il parce qu'il y mm-hmm. nag loolu rek dafa plus de xaw ma treize yoo xam ne ñëpp ay sénégalais ne moom lañ for ci biir kii bi. ci biir géej gi loolu nag dafa daw yaram. nit ñi di dee ay xale yu tuuti mel ni ay weñ. ah ba mu waree jël matuwaayam kat dafa yàgga ah. mm-hmm. mm-hmm. xale hmm. hmm. waaye nag leen taxa dem loo. Hmm. da am loo xam ne nii moom nga fiy teg de pour ñu togg de te sax li am mooy waa CREI yi CREI yi xam nga CREI yi bu baax député yi nag ñi ngi fexe pour CREI yi boobu mu bañatee am ah <laughs> waaye nag cré yi dégg naa bu demee hmm. am na beneen bu ñuy tëggaat boo xam ne hmm. comme noonu la mel Tamba daal hmm. benn waay daal moom la fa gelam la large gel ba da koo bàyyi waa ji amul lu muy def bu dem publier ay vidéo yoo xam ne gel bi fi mu sumee koog di def naka su dul ay vidéo nii yam yëpp la publier tekki nag fu mu toll di yàq deru xale bu jigéen bi naan kii cagal da doon cagatu. man li ma jaaxal si kaa yooyu noonu chaque jour kaa bu bees te sama morom jigéen ñi lu tax ñu am jom bàyyi loolu. Ah, ngi noonu de. simple fan hmm. def vidéo di ko jëkkër sax jarul lool noonu. ah <laughs> parce ah, nekk dem sa yoon loolu daa a suuraale. mooy jamono jii nag ñu toll am teel. lu may téye. doo téye sa tool. information yi dafa ciy xaw. carte bi jeex na. damay dem de. yow kay boo buggee lu yomb ma lay jox damay jox lu ma téye jeex na kay ah. Badoo la sa foor la. yaa xam. man lay xaar beneen yoon.